tey mu nekk seizième édition Calebasse d'excellence yow tey nga nekk xanaa kontaan tout d'abord maa ngi ñëpp di am mbégte à chaque fois bu ñu woowee ñu ñëw bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy tënk parce que je pense que année passée aussi jëloon ñu ñëwaat wala bokkaat ak yéen guddi gi aussi ñu def kontaan remercier aussi ñi nga xam ne ñoo ci bopp. mu nekk li nga xam ne nii à chaque fois suñ ko defee jeunesse bi dañ bàyyi xel bu baax a baax dafa am benn waat benn pàcc nga xam ne ni jeunesse bi dañ ko am nga xam ne jeunesse ñu ngi koy dund yow en tant que de voix jeunesse bi nga xam ne di dem alors ba woon leçon boo xam ne moom ngeen def la lay doon waa leçon tout d'abord xanaa di leen encouragé parce tamit que ku ne dëkk moom la jeunesse bu dëkk te ñoo yor àdduna donc kon toujours dama leen di encouragé di leen ñaax loolu laa mën wax leen na leen nag Sénégal la ñu am fi ñuy juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu màggee ñu ñëpp bu ñu génnee dëkk bi foog naa ne kenn dootu fi nekk du dëkk waaye que ñu xam ne rek euh, bu yoon jeexul waa ko si bi jeex fighting nag dëgg la ku ci nekk tey boo sañoon tukki dëgg la waaye lu ñu tukki tukki wala lu ñu bëgg a bëgg tukki it nañu bàyyi ne ñun Sénégal ñoo ko moom ñëpp ñoo ko bokk ñu bàyyi xel que ne réew mi seen réew la ñu bàyyi xel que ne dëgg la li bëgg nañ ko ame ji ci biti waaye it ñu ci barit war nañ ko mën a am mm. ñaax leen daal ak ñaanal encouragé avant may jox sama collègue Diagna on va parler de la musique di xool Titi depuis bu mu woy ba léegi la doon def ko benn sondage bi nga xam ne lii buy xool à cent pour cent Titi génne njëkk génne musique musique am onze pour cent boo ko laalee nekk nekk troisième position alors loolu ban kàddu nga si am boo ko laalee mu def waaw parce que nag boo ko laalee ah, ñëpp ko jël bëgg comme gën gi dëkk comme musique musico comme ku ne ak lu la yëngal te lépp Sénégal gii la du dëkk kon ah, duma def lu dul tamit ah, remercier waa Sénégal ndax ñoo ma dooleel ñoo bëgg li Titi di def ba bu Titi toogee deful sax ñu laajte ci la laaj bëgg li may def ah donc kon du def lu dul ko yàlla waaw sant nag waa Sénégal Afrique àdduna bi yëpp ndax ñëppay constitué waaw ci ban définition nga am ci euh, showbizu génération showbiz bi comme ci euh, ni ñu ko jëlee def ko affaire de clan au lieu de talent affaire de sama artiste la même bu mënul sax même bu defut lu fi di def wala naaw la di li ñu fi def bon dañu koy imposer Sénégalais yi à travers des faux poses wala ay créer ay affaires yoo xam ni bon mën nañ ñi mënul yóbbu artiste bu sori ban analise nga am ci ci ci ci showbiz boobu waaw xam nga nag euh, ku ne li nga bëgg rek ngay def ku aussi li nga gëm rek ngay foog ne moo leen may ndam mm. waaye am ku xam musique xam art mm. art fi mu newoon musique fa mu mm. nekkoon la nekk ku ci laaxatu liggéey di nga am les résultat devant toi ku ci laaxatu cons li nga xamante ne yow moom nga bëgg pour au devant de la scène tamit foog naa ne di nga ci am li nga ci bëgg parce que musique dafa laaj qualité laaj patience defe naa mes débuts wax naa ko du loo xam ne danga nga mën a ñëw rek tey tey tey li nga bëgg nga fekk ci wala tey tey rek nga foxo ci ko noow mm-hmm. parce que tey bu doon lim ay ndaanaan foog naa ne dañoo juddu fekk leen fi à travers seen musique seen i œuvre mm-hmm. aussi faire partie ci li nga xam ne tey tey ñun bu ñu bëggee musique mm-hmm. loolu moo tax à travers le monde entier donc kon musique li mu laaj dafa bari ba nga war a mën a am am mhm. ko def ci sa empreinte xam ne lii vraiment ñëpp ñu ngi ci gis seen bopp à travers yow. d'accord man personnellement bëgg naa sa featuring ak yenn ci ay artistes wala say mhm. soppe ñoom euh, ni Wally Seck wala Sidi Diop est-ce que prévoir ngeen seen ay staff wala yéen en tant que des artistes ngeen contacter euh, def featuring boo xam ni du ngeen ci xool yéen personnellement ay stars yéen doon xool ni ko public bi di xaaree parce que gis nañ yenn stars xam ne bu ñu defee featuring euh, te bës te nit ñi dañu koy bëgg bu baax a baax est-ce que ci mi ngi bàyyi xel loolu ci tam. bien sûr lépp ci musique la bokk musique kenn moomu ko te dafa yaatu artistes yëpp ñoo ko bokk artistes yëpp ñoo ko moom tey ko ci sentir war nga mën a joo bokk moom loolu du dëkk ah, loolu du benn problème. alors dama def benn gëstu xool ndax musique fu mu toll nii dafa am lu bees tendance la xaw ma mode la ñu euh, moo xam yow ak seen dawal artistes yi yëpp nga xam ne yéen nekk seen kaw yéen bokk même génération beneen tendance bu bees ngeen di nga xam ne ni xale jigéen dañ ko mën a TikTok wala dañ ko mën a peut-être di ko mot la mm. wala tendance par rapport ak bu njëkk ba musique bi ngeen doon def. ak est na booster carrière artiste. Mm-hmm. topp tendance non man nag euh, pour man man dama mm. pas je parle de waaw man l'intéressé man je ne pense pas parce que koo xam titi xam ne man ba ñuy samay way du tey ku ne ak li la yëngal même chose ma ñëw ci musique musicale comme. je viens de le dire jikko mooy nit ndax titi ku ko xam-xam ko ci actualité ku ko xam-xam ko ci luy jëriñ nit yi ku ko xam-xam ko ci société ku ko xam-xam ko ci mbëggeel donc domaine boobu du domaine boobu laay joobee est-ce que yaa ngi ci égotrip ba léegi non boo ko laalee mën nañu égotrip la Euh, beneen bi ci ginnaaw fàtte naa ci lu mu tudd. jikko mooy nit la mu nit la loolu tamit voilà voilà est ce que léegi Titi dafay concentré wu ci ego trip c'est-à-dire boppam wax moom mooy kan. xam nga dama la wax dama ne man Titi damay bind. j'arrange je compose et je fais je fais ci ay co-arrangement et tout du dëkk li ma ittaal mooy way lu neex jox ko doomu aadama mm-hmm. nga gis sa bopp man mi ko way ma bëgg ci gis sa bopp àdduna bi gis si seen bopp mhm. ki ci enjoy ki nga xamante ne tey dina ko wan yoon ki nga xam ne da koy dolli man loolu moom a itaal grand théâtre bu nga xam ne Sénégal bi ñëpp ko ndam fu mu doon nii eh, titi à chaque fois bu bu tegoon grand théâtre day gis loolu titi daal di génn def événement yu mel noonu du xew dara du dara du dara parce que nag tëgg grand théâtre presque trois fois wala quatre yoo xam ne toujours merci à chaque fois ci lu jëm ci domaine boobu du dëgg mm. ba nga xam ne donc dootul loo xamante ne lu bees la seemaan xëy na tamit ñu seet beneen place xanaa. est que du bés bu mag day gën a taaral day gën a yëkkati artiste euh, ku mel ni Titi dafa war di am bés yu mag gis nañ fi artistes fi nekk à chaque fois à chaque année wala ci mois bi di am ay ñaar ba ñetti bés yu mag te Titi aussi dafa bokk ci ténor yooyu noonu euh, j'en suis sûr la la bëgg a wax c'est-à-dire bés yu daan def. mu mu théâtre rek parce que bu weesoo au grand théâtre tamit euh, tëgg ci place yu mag yi tamit parce que lu ci bari loolay war a nit ñi ñàkk jot Sénégal parce que place yi may jël a Europe wala yéen place yi may jël en Afrique mm-hmm. fa dugg te xam ne saal yooyu sax amaana est-ce que ëppuñ sax grand théâtre mm. donc kon sant yàlla du dëgg ba nga xam ne donc du du ci saayit boobu ndax ku xam ci yee xam ne man toujours boo ma gisul sax maa ngi laa xoto di liggéey mm. bëgg nañ ko nag mi ngi su suñu xel ak suñu xol suñ ci pare ba suñu borom sottal ko ah boobaa ñëpp jox ci lu tax lu mu génne mu neex yàlla sa xol moo neex sa dundin moo neex wala ah, da nga am xaalis wala sa macha allah maa ngi sant yàlla ah, lan moo tax loo génne rek dafay wala ah, du sant sant yàlla ndax dans deux ah, ah, ndax i tamit euh, empreinte moom suñu borom moo ko jox nit su juddoo du dëgg mm-hmm. ah ba nga xam ne donc maa sant yàlla sama dundin neex na sante naa ko yàlla dara na xariwuma sante naa ko yàlla ah sama réew tamit su ma sañoon tamit mu gën a neex te it macha allah ndax fii rek nga dégg kaay naan ataaya kaa ñu an kaay bu ngeen ma place nangam amu ci yeneen dëkk du dëgg donc kon suñu borom defee lu ma def mu nekk it lu ma def adduna yëpp bëgg ko wala toog sax di ko xaar suñu borom moo ma ko may sa fidélité ak sa manager pour tëj mhm. parce que gis nañ ay artistes yoo xam ne bu ñu bu ñu xewee nekk en vogue euh, deux ans trois ans ñu changé manager mhm. mais yow da nga am fidélité ak Alain waa Alain sax ah, da ngay gisee Ibrahima du presse a ah, sax a jiitu Alain j'ai presque léegi dix ans wala quinze ans ak moom du dëgg te kóllëre dafa am solo mm. man nag euh, dama bëgg toujours kóllëre loolu tax ñu ci bari boo leen dee xool sax boobu amaana sax débuté gu ma woon ak bi aussi mu nekk ku baax ku sympa koo xam dafa ubbeeku yaatu te man ku xam-xam ne ay reetaan ay mbalak man ci yooyu laay dox damay bëgg di bëgg di enjoy sama bopp saa su ne te ale nag il fait partie. est-ce que mën nañ xaar Titi dernière question rek. Ah. Euh, Titi daal di changer style musical au niveau international. xaw a wàññi mbalax tuuti. <laughs> déedéet bàyyi kon ma déedéet parce que gis à chaque fois musique sénégalaise fu mu nii ñu wax ko ñu bañ ko wax. Mm-hmm. Sénégal fii moom fi dox bu baax mais au niveau international dafa mel ni ngi xaw a tagam tamit tuuti rek. waaw au niveau d' international bi nag euh, du ci ñun parce que peut-être les empreintes yi njëkk a fondé la musique sénégalaise peut je sais pas ou bien la musique africaine ci gàttal parce que on a que ne bu musique africaine la yaa ngi gis ne nigérienne bi fi ne ni Nadia bi moo dominé à travers l' comme lu ah, ci ay américa ak ainsi moom la ñu mm-hmm. juddoo moom la ñu nàmpee moom la ñu xamee mm-hmm. waaye ku xool Titi yee dëgg war a xam ne la mu denc bari na. kontaan nañ Titi wax baax merci eh, mais Titi sant nga de. waaw bàyyi ko yi de. Ah, ah jéem a la wax li xale yi génne léegi rek yaa mën yàpp doole. ah yaa gën a féetee xale. waaw sëñ bi maa ngi gërëm aussi waa Banjul Banjul yi ndax ko xam titi xam tamit ne am naa fa styliste bu mag ñu koy waxee Massané nga xam ne tamit à chaque fois robe yu baax yi titi ah, di sol moom aussi daf ma ciy génne waa Amérique aussi di ma génne di waaw Paris aussi ah. même chose ah laay aussi nekk fi ma génne télé ci yére olof. doo may ngir yàlla waaw nee leen woy presse bi nag. waaw mais presse en ligne bi surtout en ligne ah, waaw ay jeunes rek a fa nekk. bu ko laalee dinaa la tuur gaañ koñ bi am ngeen gan defaraat leen toggaay benn jeeg du nelaw fii réew mi benn jeeg du nelaw joué